maître Assane Dioma Ndiaye maa ngi lay nuyu. oui maa ngi leen di fay. alors maître euh, en tant que njiital ligue sénégalaise des droits humains noo jàngate manifestation wu ñenn ci askan wi euh, surtout ñu dëkkee jàmm gën ak euh, Malika jëm ci doon bañ ñu rob fa ay nit yoo xam ni dañu faatu ci jàngoro ji di coronavirus. waaw mbetteel bu mag mbetteel bu mag lañ ci am mais mbetteel boobu sax li tax mu xaw a sedd ci ñun xëy na mooy li nga xam ne sénégalais yëpp ñoo ko. amee ba pare naqarlu ko wane naqarlu bi aussi parce que boo liiree réseaux sociaux yi réaction yi ñëpp euh, jaaxal na leen tey ay sénégalais yi Sénégal ci boppam am ñu fi nekk mun a am yenn comportement euh, ñoo ci ñoo xam ne yéen a bokk lépp yi ay dëkkandoo ngeen ay mbokk ngeen yéen a bokk euh, li ngeen gëm buñ doonee jullit wala catholique lu ñu mën a bokk am na valeur yoo xam ne ay valeur yoo xam ne suñu peuple daf ko xës a assimiler te loolu kenn waru ci dellu ginnaaw d'ailleurs loolu moo sóoboon xeex bi ñu defoon bi ñu ne bi état du Sénégal ne képp ko faatoo ci Covid 19 euh, sa koor duñ ko mën a indi Sénégal nañ ko denc fa nga nekk ci condition yoo xam ne ñun xamoon nañ ne buñ leen fa nare bàyyi non seulement li ñu li seen diina digle li ñuy wax ñu denc la ci anam yoo xam ne dina dëppoo. ak yow li nga xam ne moom nga bëgg d'abord volonté ki nga xam ne mooy faatu sañ na ne fi bu ma faatoo nañ ma denc fenn mais ñaareel xam nañ ne euh, li ci war ci diina jullit loolu du fa mun a am par exemple su ma jëlee exemple boobu mais mun naa ko jël ci yeneen religion yi nga xam ne moom la ñuy wax religion révélée yi donc loolu moo sumboon xeex boobu ba état bi mujj nangu juumteem ba ne ñooñu kat nañ leen indi léegi nag loolu bu amee bañ defee ne Sénégalais yi dinañ ci seen biir euh, tey ñu indi wax ju mel nii te ñi nga xam ne dañoo faatu ci Covid 19 dañoo faatu ci feebar boo xam ne mun na doonoon mun na doon choléra mun na doon leneen mun na doon sibiru mun a doon leneen loo xam ne suñu borom moo ko indi mu ànd ak àdduna àdduna euh, tiis ak naxar ak bànneex ñoo ànd wër ak ñàkk wër moo ànd jant bi ak lëndëm ñoo ànd donc tey boo ne man euh, jant bi rek lay nangu mais lëndëm bu ñëw duma ko nangu yow yaa ngi weddi sax li nga xam ne yow moom nga doon wala moom nga gëm wala moom nga war a wone ci sa euh, qualité jullit wala qualité beneen Euh, loo xam ne yaa ngi topp beneen diina moo tax loolu jaaxal ñu euh, mais rafetlu biñ ci am rek mooy réaction bi ma wax mais surtout nag li nga xam ne corps médical bi monté na au créneau xamal na ñi ne niñ ko waxee woon ci ñi nga xam ne ñoo faatu bitim réew képp ku sa faatu ci feebar bu mu mun a doon tey doomu aadama am na jumtukaay yoo xam ne dina la defar ci kaw defarin boo xam ne loolu mënta am risque ku faatu ci Covid 19. wax nañ ko waxaat ko nañ lay désinfecté dugal la ci ay ay couche euh, dugal la ci cercueil yi kenn du la manipuler ñi la war a denc ñooñu seen xam-xam moo màcc ci mbir moom duñ na bàyyi ak say ñooñ ñooñu buñ defara noonu ba denc la loolu defe naa amul kenn ku war a ñëw naan du ma nagu ñu denc ko fii surtout na ngay attaqué wu nag ay ci ñoo xam ne xëy na sapeur pompier yi mënoon nañu léeg-léeg ñuy am jiixi jaaxa ci ay force de l'ordre mais sapeur pompier même boo xoolee sax ci yeneen dëkk yi bu ma jëlee exemple France le 14 juillet sapeur pompier fu mu génnee moom la ñuy gën a tàccu ko ñëpp. Mm. ñooñu ay jàmbaar la xaw yoo xam dañ fi nekk heure boo leen woo boo nekkee ci njaaxle sa kër di tàkk accident de la circulation. Mm-hmm. ku ne yoo ñooñu dañuy déplacé wu doo leen fay dara. Mm-hmm. tey nga dem bay toj seen i oto ak waa service d'hygiène. ak ay croix ñoo xam ne ñooñu bu doonoon ci guerre. guerre laa wax boo attaqué aux personnes de la Croix-Rouge loolu dañ ko considéré comme crime humanitaire. Hmm. dañ mun nañ la yóbbu sax a la Cour pénale internationale donc suñu citoyens sénégalais yi foog ñu xoolaat seen bopp xam ne tey xëy na jamono métti na xëy na li wax autorités yi euh, amatul trop ci mais am na loo xam ne bu ñu demee ba ñàkk ko. defe naa dinañ ñàkk fondement dinañ sappe fondement ci suñu société moo tax ñun organisation de défense des droits de l'homme yi dinañ génne communiqué naqaru loolu wax ne doomu aadama nañ ko bàyyeeg suñu borom lépp loo xam ne mun na koo dal nañu respecté ay droit même bu faatoo dafa am ay droit ñi ñu wax ne faatu nañ faatuwuñ ñu ngi ci ñun dañuy dëkk ak ñun di ànd ak ñun donc loolu yaakaar nañ ne dootu njuumte la boo xam ne du fi amati te ci communiqué bi bu ñu ginnaaw bu ñu euh, réaffirmer suñu solidarité ak corps yi nga xam ne mbir mi dal na leen muy sapeur croix ak service d'hygiène ñu ngi demander état bi nag mu jël ay disposition pour que nag képp koo xam ne war nañ na denc ci anam yoo xam ne moo dëppoo ak dignité humaine état bi fexe ba loolu dañu jëmmal ko ba li xewoon daal mu bañati fi am. Mhm. maître ngir des ba tey ci euh, mbas mi euh, lu aju ci wàllu état d'urgence ak couvre-feu ñu ngi koy doxal ci Sénégal bu baax léegi léegi mu am euh, ñetti weer loolu nag àndul souvent ak àq ak yelleefu doomu aadama li jot a xew yépp ban jàngat ngeen ci def. waaw am na loo xam ne man personnellement bi ñuy waxee rek mbiru état d'urgence. ak ni feebar bi ñëwee bokk naa ci njëkkoon a préparer Sénégalais yi xamal leen nag ne leen. Euh, période d'exception mooy période yu mel nii nga xam ne administration bi wala état bi mun na jël ay mesures yoo xam ne yoon mënu ko ko woon a may buñ nekkul woon ci état d'urgence maanaam droit yi nga xam ne constitution bi dañ la ko jox ak say li ñuy wax droit individuel ak droit collectif droit yooyu ñaareel état d'urgence day may bu fekkee ne la tax ñu daal di sa nasaxal tegu na ci yoon état bi am na droit nasaxal ko te xam nañ ne bu fekkoon ne dañu nekk ci état normal boo bëggee réunion xëy na publique nga def ko boo bëggee marche constitution bi la ko may ak yeneen ak yeneen liberté d'aller et de venir maanaam jógee Dakar dem Touba dem Kaolack dem Ziguinchor gis nga tey loolu yëpp doomu aadama yi mënatuñ ko mais loolu day fekk li nga xam ne mun nañu wax ne dañ ko nasaxal ci kaw li ñuy wax motif légitime loo xam ne xëy na intérêt général bi moo war a primer ci intérêt particulier mais man xamaloon naa yi tam ne période d'exception souvent mooy période bi nga xam ne droit de l'homme moom ci lay gën a euh, li ñuy wax wéet wala ci lay gën a euh, or orphelin ni ñu koy tuddee maanaam période la boo xam ne droit de l'homme dañ koy faral di ko toroxal te loolu seetlu nañ ko ci état d'urgence bi bi mu amee rek premier jour bi gis nga niñ doon téye doomu aadama yi di leen door di génne ci oto fekk ci oto di dóor di leen toroxal yàlla def na bi ñu yëkkatee suñu baat état bi ak waa police reconnaître nañ ne loolu kenn mësu ko santaane mais bu weesoo loolu gis nañ ne sax euh, am nañ fi cas yu bëri yoo xam ne indi nañ ñu ko ba bi ci mujj rek mooy bi xew njaarim euh, keroog ba tey dégg naa ne boulanger yi njaarim sax dañu ne dañuy def grève dootuñu lakk xaw ma tey xaw ma le premier juin pour mm. protester ndax ni ñu gaañu benn xale boo xam ne euh, parce que li ñuy wax rek mooy bu fekkee ne nit ki dafa wàcc yoon ci état d'urgence ba tey mayuñu Euh, kenn mu dóore wala mu euh, atteindre euh, atteinte à intégrité doomu aadama li ñu may nit ki rek mooy même bu état d'urgence waxee dañ ne ko wàcc yoon lii lañ la war a teg li ñuy wax peine légale mais bu weesoo peine yooyu nga xam ne côte pénale bi wala ordonnance yi nga xam ne ministre de l'intérieur jël na ko wala président de la république kenn amul droit yow nga defal loo xam ne jàpp nga ne yow mooy sa solution bopp da nga dégg nit ñi naan waaw bu ñu dóoree nit ñi duñ génnati dóor yi baax na ci ba tax nit ñi duñ ti mais loolu dañoo topp seen xel rek mais loolu du mbiru état du mbiru état de droit état de droit li ñuy wax peine peine bu ñu war a teg doomu aadama yi rek day fekk yoon jëmmal ko loolu defe naa grec yi dañ koy wax ñëpp wax nañ ko ci ci yooñu la ñu tiré suñu tradition. Mm. ci mbiru droit moo tax ñu jàppoon ne loolu xëy na. Euh, war din doon na période boo xam ne dinañ ko dund ñu préparer woon Sénégalais yi. Hmm. gis nañ nag ne am na ci cas yu doy waar ba sax ay droit à la santé ñoo xam ne war nañ mën a faju boo xam ne weesu na affaire Covid 19 bi ñu xañ leen ko ñu amoon rendez-vous. yoo xam ne dañ ko doon def périodique ñu xañ leen ko bañ mujj faatu maanaam gis nañ ci daal ay cas yoo xam ne euh, doy na waar yoo xam ne jàpp naa ne bu ñuy tiré leçon ci gestion euh, Covid 19 bi duñ ko dinañ ci jëlaale en ba nga xam ne ëllëg même droit à la santé bi ñuy wax doy na waar ñu dem ba épidémie am rek amuñu sax ay centre yoo xam ne prévoiroon nañ ko foo xam ne bu amee ñu feebar yor jàngoro buy wàllaate ñu mañ leen faa yóbbu xam nga loolu défaillance mhm. euh, munta weesu loolu mhm. yow nga doon état xam ne épidémie ñi ko xam ñëpp depuis la peste wala depuis yeneen feebar yi amoon Espagne ci année dix-huitième siècle ba léegi nga xam ne mun na am ay jamono loolu ñëwaat te say structure de santé prévoir fa sax benn centre boo xam ne bu amee ñoo xam ne am nañ maladie contagieuse nga yóbbu leen fa xam nga loolu mënut a weesu euh, violation li ñuy wax droit à la santé parce que kat droit de l'homme mënuñu ko yemale rek ci ay droits civils et politiques et sociaux te loolu droit à l'éducation droit à la santé yooyu yëpp def ci bokk moo tax dinañ def benn analyse boo xam ne defe naa nit nañ ko jébal état bi pour lu mel ni moom mu bañatee doon mbetteel wala source de violation yoo xam ne dina nasaxal li ñuy wax yëref ak doomu aadama. Mm-hmm. maître leen jaaxal aussi yéen waa LSDH mooy euh, li faatu ci doomu aadama fan yi ñu génn euh, ca maison d'arrêt de correction bu Diourbel yëf yi loo bari lool taxoon euh, ngeen interpellé ci ñi nga xam ne ñooy saytu prison yi mais aussi autorité yi lan moo dellu si ginnaaw njàqare googu ngeen yëkkati. waaw li may njëkk a rafetlu mooy bi ñu interpellé kuréel bi nga xam ne moom lañ fi teg kuréel boobu nag dañu Nations Unies ñoo ko. daal digle woon ne léegi réew yëpp nañu institué ci seen dëkk li ñuy wax observatoire national euh, de privation des des des des d'observation donc des privations de liberté maanaam képp koo xam ne nekk na ci foo xam ne dañ koo xañ mu dem di ñëw te mu nekk ci autorité état bi nañ fa observatoire boobu am na sañ-sañ di fa dem di xool lan moo fa xew ndax ñafan fa nañ leen di tëyee méngoo na ak euh, ni ñu war a téye doomu aadama ndax droit yi ñu war a am yëpp parce que il faut ñu même buñ na téye ci li ñuy wax maison dare benn droit rek nga ñàkk mooy dem ak ñëw mais droit la santé ak lekk gu baax ak fi nga war a nekk tëdd fa mu am condition d'hygiène yoo xam ne may na la wër gu yaram ak heure boo feebaree ñu war faj ci anam yañ na war a faje loolu euh, détenu bi ki nga xam ne dañ ko tey ñàkkul loolu hmm. moo tax bi loolu amee ñu am benn faatu ñaari faatu ñetti faatu ñeent juróom ba juróom benn ci diir bu gàtt ñu ne nag ah lii kat problème am na neewuñu nag ña faatu dañ leen dóor wala dañ leen torturer waxuñu loolu neewuñu itam ne administration pénitentiaire dafa am loxoom loxoom dafa dugg ci faatu yi mais dañu ne problème bu amee kenn warta toog rek surtout que nag nga toog nga am organisme bu mel noonu boo xam ne dañ ko fee teg pour mu war a saytu nan la doomu aadama yi toogee ci euh, anam yu mel noonu nga xam ne buñ nekkee prison moo tax suñu xel ni mu njëkk a dem bu weesoo sax ne procureur bu nekk njaareem hmm. bi cas bu mujj bi amee rek nee nañ ubbi enquête ba xool nu mbir mi amee ñu daal di interpeller euh, organisation organisme boobu ne ko nag jot na comme yow yaa fi nekk loolu pour réguler ko te kat li ñu jàng ñun ci sociométrie maanaam mooy science bi jàng mbiru société bi ni muy doxe mooy bu fekkee dafa am problème yoo xam ne rek mu ngi persister ci société wala droit état de droit dafa fekk institution yi nga xam ne ñoom lañ fa teg pour fexe ba problème yooyu du am wala bu amee ñu réguler ko joué wuñu rôle bi ñu war a joué loolu la ñuy wax fay faillite des des politiques publiques hmm. muy mun na doon ñi nga xam ne ñooy saytu mbiru régularité ci appel d'offre yi mën na doon cour des comptes yooyu yëpp loolu ku ne sa wàll da nga war a sa rôle moo tax bi mu amee ñu ne ko nag jot nañ comme yoon jox na la ay matukaay ak ay prérogative nga dem xoolal sa bopp parce que li ñuy bañ euh, rapport si bu ñëwee rek ñu ne ah diw kat mort naturelle la ñu ne ah kon problème amul non loolu amul benn automatisme entre mort naturelle ak ñàkk problème amul benn corrélation parce que mun na doon moor naturelle mooy mort boo xam ne jógewul ci loxo bu ñu gis ci doomu aadama ci gaañu gaañu wala dara mais même feebar mun na jóge ci condition nekkaay bi ñu nekk ci biir prison wala lekk ba ñuy lekk wala sax euh, ñàkk. ay euh, soin de base primaire yoo xam ne boo sa bopp di métti war nañ na ko njëkk a jox. Mm. balaa ngay mën a dem hôpital ñu traité la donc erreur bi ñuy def Sénégal mooy buñ génnee rapport d'autopsie rek. Euh, même journaliste yi sax nga xam ne xeex bu mag la ñuy xeex ñoo njëkk a lancé alerte ci mbir mi dañuy am tendance naan woy l'autopsie conclut ay une naturel te loolu dafi doon faux apaisement boo xam ne faux apaisement la mm. moo tax ñun ñu bëgg ñu gën a xóotal mbir mi ñoo am ay li ñuy wax pratique stéréotypée ci démocratie day am ay pratique yoo xam ne bu amee rek nga war koo def da nga koo war a def waroo xaar sax ñu la ciy soññ mhm. mais bii nag ñu ngi rafetlu nag li nga xam ne bi ñu génnee rapport bi rek euh, madame euh, Josette Lopez mi nga xam ne mooy présidente euh, observatoire bi moom yónnee nañu rapport bi nga xam ne defagum nañ ko ak li nga xam ne ñu ngi koy envisager xëy na sax nee na période confinement bi moo leen xaw a gàllankoor mais aussi ñu ngi waxaat rek ne lii moom ñu nekk ci confinement ak pa wala nekkuñ ci doomu aadama mun ñu bàyyi yu mel ni di am ñuy setaan donc ñu ngi koy ñu ngi leen di njort di leen exhorter ñu gën a dem euh, nu mu gën a gaawee ba Jurbel def rapport boo xam ne day doon rapport impartial nu ñu koy waxee ba nga xam ne ñu xam mbir mi lan moo fa nekk bu fekkee am na saafara bu indi ñu indi ko te loolu defe naa dafa war a famille ñi nga xam ne seen doom a ngi foofu parce que ci communiqué bi ñu génnee li ñu njëkk a def mooy dañu partagé euh, njàqare njàqare bi nga xam ne famille ndax tey ku sa doom wala sa mbokk nekk ci prison Diourbel rek yaa ngi ci njàqare loolu nag dafa laajoon ñun not seen xol bokk ak ñoom inquiétude boobu ba pare nag demande mesures yi ñu war a jël ñu jël ko ci saasi. Mhm. bracelet électronique wax nañu ne maître dinañu ko tàmbali doxal ci euh, Sénégal loolu LSDH euh, ban gis-gis la ci am. waaw. Euh, xam nga ñun comme dañuy yëngu ci yenn faraaxu doomu aadama lépp luñ jàpp rek ne mun na fexe ba doomu aadama ñu gën koo ormal wala même bu juumee sax mu def foot wala mu toñ société bi war nañu ko écarter war nañu fexe ba mu fay borom ndax bu fayul borom kat anarchie mooy am képp koo xam ne wàcc nga yoon dañ lay teg yoon mais ci kaw teg yoon bi am na noo mën a sànke doomu aadama mais am na noo ko mën a dimbale ba mu xam ne da ci njuumte la nekkoon ba fexe ba indiwaat boppam ci société bi li ñuy wax resocialisation moo tax euh, bracelet électronique ñun duñ ko écarter ci maanaam jumtukaay yi nga xam ne mun na fexe ba képp koo xam ne yaa ngi jàkkoonteeg yoon yaa xam nga nekk ci enquête boo xam ne pareegul wala ñu daan la ba pare mënuñu exclure ñu mun na ko appliquer ndax loolu day tax d'abord bu fekkee ne yaa ngi ci enquête bo bu eggagul ñu bàyyi la ci biti di la may bët mais di continuer enquête bi bu fekkee daan nañ la itam ñu bañ laa bàyyi prison bàyyi la nga génn continuer sax ay activité mais nag ñu xam ne am na loo xam mun a def ak loo mun munta def am na fuñ la toogloo foo xam ne mënoo koo dépassé ndax kat loolu dafara doon aussi sanction bu nekk ci yow xëy na dina gën a woyof ba boo nekkoon ci maison d'arrêt mais nag ba tey sanction bi mu ngi fi parce que da ngaa wàcc yoon mais li ñu wax nag mooy loolu mënta doon solution boo xam ne mooy doon solution principale ci problème yi ñu bëgg a xeex parce que bracelet bi d'abord ki ñu koy takkal may ko mu génn moom ci moom la dépendre day wax ne man nangu naa wala nanguwuma xëy na am na ñoo xam ne seen ngor wala seen dañuy wax dañoo am kersa mayu leen ñuy takk bracelet ñoo xam ci tànk la wala ci loxo di génn ci société bi léeg mu sone ñu xam ne kii kat dafa jàppanteeg yoon donc loolu solution bu limité la ñaareel bi aussi dina laaj ay moyens technologiques yoo xam ne xëy na du mun a daj ci Sénégal gi yëpp wala fiabilité bi nga xam ne yaakaar nañ ko ci du mun a am donc ñu ne loolu xëy na baaxoon na bu fekkoon ne am na yoo xam ne ñoo gën a jàppandi yoo xam ne réglé woon nañ ko d' abord boole ceeg li ñuy wax juge de la détention et de la liberté nañu jéema euh, indi mesure générale ak impersonnel yi ba pare léegi nag bu bracelet bi ñëwee li nga xam ne mun na ko réglé mu réglé ko loolu daal moo tax ñu appelé état mu xaw a tey ci bracelet bi bañ koo def rek ne solution bi nga xam ne moo war a réglé problème population sur euh, carcérale bi sur population bi wala mm. affaire réinsertion sociale defe mm. naa am na yeneen jumtukaay yoo xam ne il faut ñu gën cee yëngu gën cee sori. Mhm. balaa ñuy egsi ci bracelet boobu nga xam ne. incertitude bu mag lay indi te li mhm. ëpp ci sénégalais yi defe naa tey boo leen euh, parewuñ pour dund ak koo xam ne. jàpp nañ ne dafa nekk ci yoon ñu takkal ko bracelet. Mhm. loolu aussi problème de société la boo xam ne. Euh, xëy na dafa laaj benn politique de communication ak sensibilisation boo xam ne. war na jiitu avènement bracelet électronique bi. Mhm. jërëjëf maître Assane Dioma Ndiaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi fàttali ni yow yaa jiite Ligue sénégalaise des droits humains. maa ngi leen di gërëm aussi di am mbégte doon invité euh, matinal ci seen rajo bu mag bi. merci maître bonne journée.